mbokk yi niñ koy defee rek ci bokk di nafaraat ak bokk di fàttaliku ñu nekk ci weer wu wala ñu jublu ci weer woo xam ne weer wu tedd la ñu doon doon wunu war a waajal ñu wone woon nag tedd nga ji nga xam ne nekk na ci weer ci ay xadis yoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu ko wax muy bi ci njëkk mooy dafa xadis yi la mooy wax joo xam ne ci suñu boroom la jóge jaa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu xam le ne koor day man maa ko moom moo tax nag maa koy fay maa koy fayal sama bopp kon doomu aadama ji da koy def waaye ki koy fay te moom ko mooy suñ borom loola rek di jëf xam nañ ne doomu aadama yi li muy jëf yi muy jëf yëpp da koy jëf di ci laaj ak pay waaye jëf jii moom suñ borom dafa xamle ne bu ko doomu aadama defee man maa ko moom kon maa koy seet noo koy fayee kon loola di ñu woon tolluwaayu koor ak màgg ko kon ginnaaw bi nga xamee ne waxtaan nañu lu bari ci jëm ci tëdd tedd ngay koor ak ma ak màggam tey liñ bëgg a waxtaanee. bi ci njëkk mooy koor moomu nga xam ne noonu na màgge ak nii ak noonu toll noonu kañ lañ koy war a def ak kan moo ko war a def ñaar yooyu lañ bëgg a waxtaane kañ lañ ko war a def loola yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral nañ ko ci ñaari yoo ñaari ñaari yoon yi rek lañ ko mën a defee bi ci njëkk mooy dañ ciy teg suñu bët xam ne weer wi dugg na ba wala teguñ ci suñu bët li ñuy def kon ñu xam ne weer ci ci ci weer lislaam yi wala ci weer yi nga xam ne moom lañu xam ci suñ borom ci moo xam le nag weer yi fukki weer lañu ñaar benn dangay gis weer wi xam ne weer wi jeex na wala gisoo weer wi da ngay mottali weer wa fanweeri fan nga xam ne war a kon ci fanweeri fan la yem loola nag moom la ñu yonent bi sallallahu xamal ne benn bala ñoo woor nañ doon loo xam ne dañ ciy teg suñ bët wala ñu ñu ñu ñu doy maanu teg ci seen i bët wax nu ko ñu nangul leen ko wala bu loolu amut nag niñ mën a def mooy nañ mott li weer wi nga xam ne mooy saaban fanweeri fan soog a soog a woor kon bala ñoo woor faw dañuy teg suñu bët ci weeru koor wi wala teguñ ci suñ bët ndax am na dox suñ digganteeg ñu mën koo gis loola kon li ñuy def mooy mott li weeru weeru tab weer baraxlu wi weeri fan soog a woor loolu kon mooy ñaari condition yi nga xam ne munte ñàkk ngir nit ki soog a mën a woor loolu mooy tax itam bu wooree koor ga wér ndax munta woor te gisut weer munta woor itam te maanaam weer wi yi nga xam ne mooy baraxlu gisu ci gisut weer wi mu mottali ko fanweeri fan wala bu ko gisee xam ne gis na ko kon mu woor bu ko defee nag yonent mu mel ni xamal nañu day weer wi day mën naa sax nekk ci kaw waaye su ñuy gis ak gut ñu mën koo gis bu boobaa itam bul sonal suñ bopp ci wax ne faw mi ngi fi waaye te dañ ko gisut rek waaye mi ngi fi kon nañu woor déedéet ndax fa in ma la wax niir mën naa dox suñ diggante ko weer wi ba gisuñ ko kon bu boobaa lan la ñuy def mooy nañ mottali weeru baraxlu bi fan weeri fan bu ko defee soog a woor mu mel ni kon de am na yoo xam ne danañ ko di sulli léeg-léeg te duñ ko xoolee doonut lu am solo ci ni nga xam ne moom lañu lislaam jàngale ndax xam nañ ne léeg-léeg ñuy bëgg a ñuy sonal suñ bopp ci di wax ne dañoo war a bokk di woor dañ bokk di woor yi te am na ay farata yoo xam ne moo gën a rëy woor moo gën a rëy korat moo gën a rëy woor yi moo gën a rëy tëbaski te duñ ko defadoo te loolu ko di ci wax dara kon mu mel nii ñun ñooy sonal suñ bopp ci yenn yi te loola mën na ko mën na caa bañ a àgg xam nañ ne ñun ñëpp duñ bokk julleendoo ci jullit yi duñ bokk julleendoo tisbaar duñ julli duñ bokk julleendoo timis duñ bokk julleendoo gee duñ bokk julleendoo waxtu yi nga xam ne moom la suñu borom war si si ñun ñëpp te taxut mu doon benn problème ndax xam nañ ne jamono yi bokkut loola nag nañ ko mën a muñee te xam ne lii tax tekkiwut ñu ñàkk ànd tekkiwut su ñàkk booloo loolu war nañ ko mën a wuñ ci mën ko mën nañ ko mën a muñ ci koor ak kori moom ci tabaski ak korite ngir xam ne ñàkk defandoo benn tekkiwul ne dañuy dañoo doyadi wala dafay day tekki ne suñu njullit dafa wérut loola ndax yaakaar naa ne tabaski maanaam julli tëb julli tisbaar moo gën a rëy fopp korite moo gën a rëy fopp itam tabaski te duñ ko defandoo te loolu amul benn coow boo xam ne moo ci moo cay juddoo mu mel ni day am yoo xam ne ñun ñoo koy dugal ci suñ biir mu bëgg réyal ku ta réyul googee ñu ko réyul àggut fam fam war fañ ko àggale loola nag ginnaaw loolu bi nga xamee ne xam nañ lii tax ju woor mooy lii kay woor nag mooy kan mooy mooy kan moom kii woor xam ne suñ borom ba muy santaane ay santaaneem ñam ñam ko sant mooy jullit ñi waaye jullit ñooñee itam day am ay melokaan yu ñuy mel ñu soog leen a war mu soog a mu soog leen a sant kuy jullit suñ borom naa la sant waaye balay sant bala lay sant day fekk na na nga ànd ak samu xel day fekk itam nga am kàttanu mën a jëf day fekk loolu mu yooyu mënut a jàkk ci yow sant googee mu day sant soog a war a war war ci yow waaye bu fekkee ne amoo xel walla mënoo ko war nga maanaam sant ci sant googee day am ak weneen kentiin woo xam ne moom la la koy sante kon nag mu mel ni lislaam walla képp koo xam ne yaa ngi lislaam sant na la nga war a def farata li nga war a yëg ci sa bopp mooy da war a yëg ne man mii kat nit ku xam laa li may def nit ku am kàttan laa ci mën a taxaw yitam li nga xam ne moom la ma suñu borom sant loolu ab jullit war a war ci boppam xam ne man mii xam naa li may def xam naa itam am naa kàttanu mën koo def loo xam naa li may def nag mooy tekk kon ne jullit bu nekk war naa góorlu ba xam li nga xam ne moom la ko suñu borom sant mu xam ni mu ko war a defee ndax loola mooy mooy mooy comme comme ku amut xel sant la kon ku am xel ku ne war ngaa xam li nga xam ne lañ lay sant war ngaa xam lu mu doon ak nan nga ko war a defee mu soog laa mu soog laa war ñaareel ba itam mooy faw da ngay am kàttanu mën koo def waaye nag boo amee xam-xam ba xam ne lii li ma war a def la am kàttanu man koo def ba nopp te defoo ko nag rawatina ci koor yonent bi sallallahu alayhi dafa xam le ne képp koo xam ne da ngaa dog ci koor bis doonte benn bis rek la te bi nga koy dog amoo teg tegoo ko lu dul xëy na sa bakkan bopp la wala sa bànneexu bopp waaye amul lenn ngànt lislaam ci lislaam lu la may nga war a dog mu mel ni comme màggat moo xam ne àgg na ci mën naa bañ a xàmmeeti sax ndax wóor na wala wóorut wala amut kàttanu mën a woor wala koo xam ne dafa wéradi wala koo xam ne dafa nekk ci ab tukki wala jigéen ji gisu baax wala jigéen ji gis deret ñooñu ñëpp xam nañ ne njàn lislaam moo leen jox ngantul doonte ñoom ñu ngi ci koor itam duñu woor mën nañoo mën na ma woor waru leen woor waru waru leen bu ko defee nag ñoo koo xam ne nag war dem am nga benn bis boo xam ne dog nga ko ci te amoo ngànt loolu lislaam may yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam le ne ne donte da ngaa woor sa li des ci li des ci sa dund yëpp itam du tax nga mën a fay benn bis boobee nga xam ne yaa ko dog te am tegoo ko ci benn ngant loola nag moo nuy war ku nekk war kon lu rëy la lu suñ borom rëyal la yonent li ñu ko gën a woon itam mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay xam le ne koor day njëlbeen gi yërmande suñ borom la boo dee boo dee sakk wala boo dee natt wala boo dee tàllal sa loxo ngir bëgg yërmande suñ borom njëlbeenu koor tàllale sa loxo ñaan yërmande suñu borom digg digg koor digg weer wi itam li muy tekk mooy njëggalu suñ borom la mu mel ni kon waxtu woo tollee ci digg weer wi te bëgg te xam ne yow mii kat ku bari bakkaar la na nga ci bari looy def jégglu na nga na nga ci bari looy jégglu mujjug weer wi nag yonent bi sallallahu alayhi xam le ne suñ borom da ci mbaa yàlla jullit ñi maanaam dootu leen topp dara ci ki nga xam ne defal na ko ba defal na ko mbaa yàlla mooy koo xam ne toppatu ko ci dara lu man di def itam suñ borom jéggal na ko loolee nga xam ne moom la def ñu ñaan suñ borom nag moom mi nga xam ne moo koy def te ci di ko def ci ku mu ko soob yàlla nañu ko suñ borom defal ba du ñu topp dara ndax xam nañ ni ay doomu adama lañ ñu matadi yu doyadi te tooñ ci lañ dëkk tooñ suñ borom tooñ doomu aadama yi ci lañ jëkk dëkk te loola suñ borom rek moo nu ci mën a dimbalee bañ man ba ba di googee suñ borom mën nu koo matal ci kaw lii nga xam ne bokk na ci yi matadi ak matadi muy mu mu ñàkk la topp ci dara goreel la ci toppatoo ci dara kon yàlla nañu suñu borom boole ci ñooñee koor nag comme xam nañ xamoon nañ am solo gi nga xam ne moom la am solo ak li nga xam ne moom la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax xamle ci ci ni ne koor nii la toll kon war naa tax ñu bàyyi xel koor lool loolu nag tax na ñu baax ñëpp dañ daa bàyyi weer bàyyi xel weeru koor lépp loo xam ne daa nañ ko def ci yeneen weer yi bu weer koor ñëwee dañ koy gën a yokk gën koo dolli loola nag moo ni dañuy ndax dañuy sawar ci gan gi nga xam ne moom leen moo leen gane si te doon gan goo xam ne indaale na ay sërite yu bari gan nag yaakaar naa bu la gane see te yu indil la indaali la ay sërite yu doy yoo xam ne mën nga ko caa terale kon war ngaa sant kon nag loolu moo tax ba ñu mel ñu baax ñëpp saa yu koor ma saa ñëw dañuy sant yàlla ndax xam ne andi gan gu mag te ganasi na leen te gan googee yomb naa yomb naa yomb naa teral ndax lenn rek lañ koy terale mooy ni ko Sëñ Tuubaa waxee mu ne gan gu ngi ñëw goo xam ne ay xéewal képp la feese ak i mbégte kon nag gan goo xam ne nag daa fees del ak xéewal ak i mbégte yaakaar naa bu la ganesee sax war nga ko war nga ko mën a accueillir accueillir bu rafet war nga ko mën a toppatoo itam toppatoo bu rafet mu ne mu ne mu ne nag gan gu mel noonu nag kon li may ñaan suñu borom na doon gan goo xam ne waxtu wu nekk na may na may nay ñëw di ma seet si di waaye nag gan googee nag daa am loo xam ne moom lañ koy mën a terale liñ koy terale nag mooy jaamu yàlla ak sax ci ak jub loolu rek moom lañ ko mën a terale amul leneen loo xam ne mën nga ko ko terale lu dul ñaar yooyu nag kon weer wu tedd la wu màgg tey ci ñëpp ñi nga xam ne ci suñ borom moo njëkk moo nu ñu njëkk woon ak màggam ndax def na ci laylatul xadar wàcc ci alxuraan kon loolu di ñu woon ne kon weer wi wu tedd la ñi baaxoon ñëpp itam xam nañ ne comme yonent bi sallallahu alayhi dadaa wax ne bu bu koor bu koor duggsee xam leen ne gan gu rëy ñëwal na leen goo xam ne day kon képp koo xam ne lu baax na tax a jóg war ngaa gën a sant te gën góor góorgóorlu képp koo xam ne itam xay na ak ndoyadi ak matadi dugal na la ci ngay def loo war def nee na nag rikk waaye na nga wormaal koor gi ba weer weer wi ba na nga wormaal weer wi ba mu jàll ak jàmm kon yàlla suñ borom mi nga xam ne mooy mën a taxawu nit moo ko mën a dimbalee ba li mu ko sant mu jaar ca nam ca war a jaare man caa daje ëllëg ak pay gi nga xam ne moom la ko suñ borom di fay yàlla nañu suñu borom taxawul boppam mu ñu dimbaleenu ba lépp loo xam ne sant na ko sant nañu ko la cay matadi ak doya di mu defaral nu ko ba mu mat sëkk ba ba ëllëgee la nga xam ne moom la ci diggee ñu mën koo jot te jot jotee nu kawe suñu jot di tàllalaat suñu loxo di jaan suñu borom suñ bi mu mu taxaa mi nga xam ne moo fi nekkal Sëriñ Tuubaa te ñëpp am mën a seere ci ne kii day lislaam képp mooy itteem ak doomu aadama yi yàlla na ko suñu borom gën a dëgëral gën ko fee gën koo jox kàttan gën koo jox ak man ba mu def ci ba lépp loo xam ne moo ci yéeneem suñ borom jàpp nan ko mu def ko te def ko nu kawe jotam tañ ànd koog moom te ci ngërëmu suñ borom képp koo xam ne lislaam la tax a jóg itam yàlla na suñ borom dëgëral yàlla na suñ borom taxawal may la kàttan ak man jox la itam ñoo mën a ñoo àndal ñoo xam ne ñoo ñoom it loolu mooy seen mooy seen ak jublu ba bu ëllëgee ngeen bokk daje ci suñ borom ak ci yonant mi nga xam ne moo indi lislaam ñu daje ci ngërëmug suñ borom ci ci ci kawe suñ njort ñëpp loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla na ko defal allahuma ixfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin rabbana la tusi xulubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahab rabbana innana samayna munaadiyan yunaadi lil imaani an aminu bi fa amanna rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al